fay. maa ngi leen nuyu. ñu bàyyi nga waa. téléspectateur bi seetaan. jërëjëf. mbokki jullit yi mbokki taalibe yi. ginnaaw bi sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa di feddali sunu jaayante ak sunu yaakaar. Seexuna ahmad Bamba khadim Rasul waye nak di fedd sunu jayante ci bundam ba mam Cheikh ibrahim Fall bab Mouridina ñoo ngi ci ci Touba Ndar Fall Jannatu mahwa ñu gën ko xam ci Ndar Fall di barab bo xamne ne Cheikh Saalihu Mbàkke radiyallahu mako ko joxoon Cheikh Modou Abdoulaye Fall li jox gi nak wax nañ ne bobu la serigne Saliou doo ko dag dagg fii di janato mu wax mu wax euh, mu wolu serigne Modou Laye Fall Ndar ba mu ne ko Modou lay fal mu ne ko fal mu ne ko man de damaa taamoo dekk ak Cheikh ibrahim fal ta da fay melne suma dekk ak yow dekk na ma njaboru Cheikh rafal gep lolu bokk na ci sababu pak bi di Ndar fal nek ci bi jant ma waaw serigne Modou Laye Fall nag nekk fi di diglu ndigal rek ni ko waajuróom bu baax ba sëñ Ablaye Fandar daa defee ah, mboolem ndigal yi nga xam ne maam Cheikh Ibrahima Fall bàyyee nañu ko ci kër sëriñ Touba sëriñ bi fii daa bàyyi ko di ko di ko di ko di ko di doxal di ko wujj ak ndigalu mu a doon rek ci biir moo xam ci biir dëkk bi la ak yeneen yoo xam ci biir dëkk bi sëñ Modou ñaar dem bu saa xel koom fii lay bàyyi ko wuy ji borom wuy ji ca ndigal la ba xel kom jeex fii la jibbisiwaat ah, bàyyam nag mi ngi ko bàyyee kër kër gi sa njaareem ndax sëñ Ablaye Fandar mi ngi toogee xalifa maam Cheikh Ibrahima Fall ca njaareem 54 ginnaaw sëñ Mor Talla Fall bi mu fi bàyyi ko 75 la fi sëñ Ablaye bàyyi ko sëñ moom lay wutu bàyyam jamono dox ndig ah, liggéeyam ndogu yi nag sëñ moom lay Fall mi ngi ko def ni ko ñëpp defee ba ah, bis bu weer feeñee lañuy ñuy kuma la ñuy xëy togg ndogu diir ba weeru jeex ba ci bisub korte ga noonu la ko njabootu maam Cheikh Rahim gépp defe noonu tamit la ko sëñ Moulay Fall daan taxawoo ah, li ci toppaat tamit yaa saa borom na jamono dox boobu ndax sëñ Moodu booy jamono mi ngi togg yu njaarim ndax sëñ Ablaay ndogu yu njaarim ko bàyyi ba noppi dañuy jël oto ak mbooloo mi ñëw indi ko Touba boobu ci yooyu jamono ci li ma fekke jamono sëñ Saliou Mbàkke ba ci mujj sëñ salihu mbake le sëñ mom lay fanda jonne digal sëñ salihu mi togg si ndogoy fi ci jantum xawaa ndar fall ñu koy togg fi di ko yobbu ku fi nek sëñ touba liggey bi nak mom defe na sax mom xam nga ko ni ni ko ni ngi koy doxale ci biir kër sëñ Moussa Fall diko doxale ci biir kër sëñ sëñ Amdi Fall mo sëñ Modou Mbende bi nga xam fi maam si Fall tey jii di ñaanal sa borom yagg ak wér nono lañ ko doxale ci mbolé bunti kër man Cheikh Rahim Fall serigne bi lim ci jëkë jital nak moy ak set ak sel mi ngi ko mi ngi ci soñé ci liggé bi ndax mam Cheikh Rahim Fall kat bañon nako ba ci liggé ndogu yii bu ko daan togal bopam diko yubul serigne touba li nga moy ndax super bi te bo demee ko serigne motali fekk ko fa kër di dégg turu super bi bol boobu ko da ko la tamul serigne bi ci yooyu jamono nenañ bay Cheikh tal Golo mom lañ ko mom la ko mam Cheikh Rahim Fall da taxawloo tay bo demone keur cheikh keur cheikh Ibra ci ndiarim ci seigne cheikh Ndigal Fall nefa dañ la won mbar mi nga xamne fofu la taxaw su per bi soo génnee ba cheikh Seex rek mu lay fete so loxo ndijoor bàyyi Seex Taal Golo moo ko di si njëkk man cheikh Ibra Fall la tamu alal ju lew jur lew li si toppaat ñi koy taxaw daawut daawut tamu ci ñom rek ak set ni ci mbub mi ba lañu jublu ba set dañuy jàpp ba set ba laab doog jublu ci liggéey bi sëñ bi dem na ci taamu melekaan bi mooy fexe fexe ba boo gisee sëñ bi taamu mbubb ñii te kër goo dem fekk ko fa ñuy ab bokk nañ ci dem euh, ci ak ràññee ku la xam-xam fi nga mu doon mbubb moo xam tam mbubb ñii ponk ci ak set lu duñ bëgg rek benn waay jóge fii ak sëftani boo xam ne moo xam ñu ci def ko mën a misaale bu dee man moo xam nga nekk mécanicien baa nga nekk tulier jóge barab ba na ndogo yoo la jëm indaale saw ñaq ak sa xet loolu dëppoo ak liggéey bi ni ko sëñ bi sàkkoo loolu ba tax na loolu tamit moo am fi mo am ci kër yëpp liggéey bi la saa su ñu xëyee murid dañuy xëy day ci kër gi seen bu ndikkee jublu ci liggéey bi ñuy jublu ci gàtt yi ñu jublu ci nag yi defar ko soxna yi ne ci waañ wi ak góor yàlla yi góor yàlla yi ne ci batt bi ñi ci turu yàlla bi ba lépp mel ni mu war a mel ah loolu loolu daal laa xam ne ñu ngi ñu ngi koy doxal fii ci kër ci kër gi fii ci kër Sëñ Moulaye Fandara bu dee wax trois heures góor yàlla yi yëkkati turu yàlla bi tur yàlla woowu ba bala ñu yekk ndab yi ndab yi moom lañ koy gàttandoo ndax ku ne xam ne kàddu suñu borom baatu laa ilaaha illallaah lim làmb ak ni mu ak ci yiw li ne ci wiiwu moom lañ koy yekke moom lañ koy euh, gunge moom lañ koy yóbbu ba ñuy dégg si waat fii kon woowu ñam yaakaar naa ku ci lekk sa mën a jox say rab alaam araam na sawar waaw la Seex Rafal digale Sëriñ Tuubaa murid nag jàmbaar lañ lool ndax kat lépp lu sëriñ bi lépp lu sëriñ bi bëgg ah taalib rek ko def seen jëf jëf ji li muy rëy rëy li muy yéemu yéemu jëfi taalib yi rek la ah taalib yi nag ñoo fi mas a nekk ndax ba fi Sëriñ Tuubaa nekkee doon ab sëñ daara jàngalekat alxuraan booba ci mu ci liñ ko mën a waxee boobu ab taalib amut booba dong ab amoon dong ab ku ne xam ne ak ak ak ak sëriñ waaye ak taalib bi nag suñ ko waxee ak Seex Ibra Faal ko fi indi bi Seex Ibra Faal ñëwee ak taalib am ko sëñ Bàmba ah taalib googu taalib yooyu nag lu baax ci yoonu ñooma lu gën ci yoon ñoo lu tax ci yoon ma ñoo jëlé raay bi indi ko fi ba sëriñ bi soxla ay soldar ñu dem ci ci guerre ba taalib yi suñu ko jaayante jox seen bakkan Cheikh Ibrahima Fall jidal ci ak njabotam sëriñ fallu Fall sëriñ Basirou Fall mu aw jaxate euh, di waajuru sëriñ sëriñ sëriñ Mortala yasin Fall ñu ngi ñaanal baax sëriñ Bada Fall sama xarit la mu sëñ Talla Yacine bu seetaanee vidéo bi démb démb rek mom dañu melni ay doom barki dem rek démb ci dox dem rek may envoyer fi ay vidéo ñuy tooñante ni mom ku yalla baxal la waye nak non la mel mel ndax ginnaw Cheikh Ibrahima dañu bokku ñu yar ñu seigne salim Mbacke xel ko kon faaw ni rek la mel mel ku baxu ko la dis gar na lol waye nak amul lenn lu mi wane ci boppam lu ak talib ak Cheikh Ibrahima ñu ko ñaanal sa borom yagal ko bax bax bax diko ñaanal mbolem mam Cheikh Ibrahima Fall gep ah talibi jumaay sin Bamba ji bu taxawee ndax ku ne xam ne ku say at bëriwul ba mel man tam dégg nga carrière mag ña lañ fa daj carrière ba màbb na ci kaw taalib yi sëñ Ablaay ci ci jamono sëñ Ablaay sëñ Ablaay yónnee sëñ Fallu Mbàkke ñu sulli leen ñañ ci sulli kenn kenn xusuuf ci mbundóob ay tool ay tool ceeb la rey yaatu woon na lool ñu ngi koy góob di ko góob di ko góob ba ba àgg ci xurwa fa ndox ma gën a xóote ci digg ba kenn ñëwu faa dugg dégg naa ñu sëñ Mourou mi dafa wax sëñ xanaa xam ne xur woowa képp ku ci tàbbi Moussa Bor Moussa la ci xuru joxal na ma am na ñoo xam ne ñoo dugg ci ndox mi wan leen ba wan si seen seen baat ñu ndox mi toll leen fii ñu dagg ceeb ndax loolu ko booba tool Sëriñ Touba la woon science Fallu Mbàkke Touba ba ko noonu kasaalika ah moom daal nañ gën a góorgóorluwaat te doon taalibe te xam ne Seex Ibra Fall bàyyeem képp ko xam da ngaa jaayante Seex Ibra ne ab Baay Fall nga diw yoo xam nga ne bu weeru koor teroo moom da sa bopp fo nek yah bay sa bop nañ gor gor ci liggey bi góorgóorlu delluwaat ci ak taalibe ci njàngale ci Seex Ibra Fall jamono ji nag jamono ji rek cholli barna rirmi barna riir ñun kenn rek lañu diglu te kenn rek lañu gëm te lu ko sa borom fay baxna na imaam Cheikh Ibrahima Fall sant nañ la bax di gërëm télévision bi nga xamné di jëf-jël TV yi jëf-jël nag ah sen télé bi kat mom day bak bo xamné Ah, turu Cheikh Ibra Fall la Cheikh Ibra ko tudd ndax sëñ Modou laay Fall dara maa nettali leen dafa am bis ku ñuy wax Baye Demba Sène Baye Demba Sène ci li ma ko mën a misaale géwélu bu maam Cheikh Ibrahima Fall la woon na ndënd yii tëgg sëñ Modou ko nett li ma dégg sëñ Modou nee dafa am bis ca euh, ca ndànd maam Cheikh Ibrahima Fall daal di woolu daal ne ma Demba ba ñu woolu maam ma Baye ma Demba bam dikke mu ne ko ma dem ba seen mu ne ko faal mu ne ko foral ma ak bagan bagan neena na mu for ak bagaan indil ko ca kàddu yi sëñ bi sax neena mo xam lam ko foré mo xam deru xar la mo xam deru bële moo xam deru nak bam ko foré bu nopi indil ko ne ko mi ni sëñ bi ko cheikh ne ko ma dem ba seen mu ne ko wutal ma ab galan moom dagg ab galan di ko jox ko cheikh bi dafa ci jëf jël ñetti yoon daana de len ko wote ndigalu suñu bamba kono seen télévision bi day wat fofu rek ndigal seigne touba rek taxaju ak Cheikh rafal yalla nako sa borom kawel bam ag ci télévision yi nga xamni ne yëpp bi deg ci télévision yi ci lu bax yalla fa sa saa eggale di sante bax nak jëm ji nga fekk di signal alsan. wax yalla euh ngeen and fi ñu tek tegtal la yoon wi di doom seigne Gumba Gueye di sante seigne alsan Gueye maam doon ko jeex tak ci keur seigne Touba jeex tak ci keur Cheikh rafal Ah, boo laajee sëñ sëñ Bada xam na wa diggante ma waajuram wa euh, sëñ Basiru Fall ak sëñ Alsaan xam na sëñ Basiru ak sëriñ xam na sëñ Basiru ak sëñ Ablaye Fandar ba ci sëñ moom Ablaye Fandar mi fi nekk mi fi mi mujj fi mujj a ah, kon nag yàlla ci saabaram defal tawféex te doolu ñu te dafa ñu ngërëmul yàlla te liggéey bi ñu bañ jege suñu bopp te suñu borom nu ngul jëf ji ci barkeb sëñ Touba Cheikh Ibra asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa waaw euh, diggante sëriñ Taale Yaasin Fall ak diggante sëñ sëñ Mor Ablaye Fall loolu day day lu yàgg ca ñoom ñaar seen seen diggante seen waajur wa dégg naa sëñ Mor lay Fall daan nettali ci seen soldaar ga nee na booba bi ñu bëgg a fii ci fii ci fii ci man damaa xamul fu ñu départ fii ci fii ci Ndakaaru waaye damaa xamul nag ban barab ci jamono ca soldaar ga fu fu ñu départ waaye booba ki nga xam ne mooy capitaine gi yoroon gaal bi gaal gi sëñ Mudu nee na daf dafa bi ñu ko départ doon waxanteeg sëñ Basiru Fall mu Seex Ibra awa jaxate nee na bi ñu bañ bañ a kii ñu dox seen diggante moom moom moom capitaine bi sëñ Basiru Fall na ko sëñ Basiru Fall na ko sëñ Basiru na ko waaw euh, sëñ Basiru na ko na ko bis nga ñëw sëñ Mudu laa ko nettal de wax capitaine bi lu ma la wax ko def ne ñuy dem bañ départ ñu départ di départ départ ba àgg ci dëkk bu ñuy wax Makka sana noobul jàpp Tuuba trois sëñ Mourou Laye waxoon na ko ne na almaa bi woor leen bënn gaal gi nee na bi ñu bënnee gaal gi nee na coow li bari jaxasoo kenn xamatu noonu nooy def nee na sëñ Basiir ju taxaw na wax capitaine bi joxoñ ko ne ko na ko topp sama baaraam bi foo jaab def ko ne tefes nee na gaal ga doo bari àgg gaal gi suuxut mooy la mu ko waxoon ko ko di nga ko booba Sëñ Ablaay yaa ngi fa ci ci ñoom ñaar seen bàyyi Sëñ Ablaay dañ la boole ñaar yoon ñoo bokkoon seen soldaar gi bokkaat Seex Ibra kër Seex Ibra Faal nag ñëpp dañuy benn Seex Ibra noonu la njabootam ba tey loolu moo ne ci biir kër njabootu Seex Faal gépp ndax foofu nga léegi mi boo di kër si Taali Yaasin Faal soo demee di nga fa fekk sëñ ab lay Fandar mu Sëñ Taali Eh, sun kër gi bu di fekk serigne tali Yacine Fall moom serigne Mablaye Fandar nga kër gi batay penj mom moom du ma génn penc moom ngay wax du ma génn nga du ko wat duggu kër serigne Ali Fall Mbawar di nga fa fekk sëñ eh, eh, di nga fa kër serigne Mablaye Fandar gi nga fa fekk serigne Ali Fall Mbawar moom serigne Mablaye Fandar nga duggu kër serigne Modou lay Fall nga duggu serigne Assis mu si Mortala di nga fa fekk serigne Modou Ablaye Fandar moom serigne Abdou Assis nga ñëw fii fekk fi sëñ Abdou Fall moom sëñ Modou Laye jii ki fi nekkal Cheikh Ibrahima Fall ki fi nekkal sëñ Mortala ñu koy wax sëñ Abdou Roqee Fall sëriñ Abdoulaye Fall Ndar lañ ko tuddee la ko sëñ sëñ Mortala ah, kii fi nekkal sëñ Abdoulaye Fall Ndar di sëñ Talla Abdoulaye Fall sëñ Talla ñu tuddewaat ko sëñ Mortala Fall moom Cheikh Ibra kon loolu kon loolu mooy li wax rek te loolu nag boo wëndeeloo ci bu dugg Cheikh Ibra Fall yëpp loolu ngay fekk kon Cheikh Ibra noonu la yore ak njabootam waaye diggante kër sëñ Talla Yaasin ak kër sëñ Modou li nga ci wax tam tey dafa dafa am nit lu yàgg ñoom ndax euh, sëñ Talla Yacine man mi sama waajur sama tuuti nettal na ma daana ñëw ngeewul daana ñëw ndop ne bu dikkee euh, ca kër maam Mor Gow daa fal daane daana fa am ay bis nee na ñoom bu dikkee ñoom ñëpp euh, xale yi da wër mu di leen sëriñ ñu ñu ko mu leen xam daal fi leen ko fekk kon nag ñu ñaan saa borom loolu ñu taw feexal mooy li mu njëkk a wax rek looloo ne Sëñ Bada Fall Sëñ Bada maag moom comme ay doom bàjjan gënañ kër goo dem ci kër seexar loola fa nekk moom daa sant nañu baax di leen jaajëfal baax seen télévision bi saa borom leen taxaw baax baax rek ci barkab Cheikh Ibrahima Fall li nga wax ñaar fukki fan ci weeru koor ah bis ah, na tey la maam Cheikh Ibrahima Fall Serigne Touba gisante woon moo tax sëñ Moussa ko wax na ñaari fukki fan ci bisub ci weeru koor bisub dibéer la mbir la mbir ma war Cheikh Ibrahima Fall rëy pexe kon bis bi mën na wax ci la yoon bu taxaw ndax Serigne Touba ak Cheikh ra bañ gisante gi yoon bu taxaw toon kon nak bis ne tey la yërëm ci la sasu sasu ci weer weer yi gën ci weer yi di weeru koor te weeru lepp lepp ay nga xéewal ay ngeenel la mo tax suñu borom tamit fayewaat cheikh ibrahim Fall ci tegtalam ndax ndogu yi kat ci ndiglu serigne touba ci la ko Seex fi la ko suñu waxoon ko dafa am gan gi bëgg a serigne touba Tuubaa ko cheikh ibrahim dama bëggon nga nga teralal mako moy ndogu yi waye ñak julli serigne cheikh ibrahim Fall ak ñak wor ah, duma di jugo serigne touba ci nima ma ko mën a misaale ndax cheikh Ibra serigne touba la waaye diggante boromam diggante Cheikh Rafal ak boromam loolu nag ab jaam lot na ci wala ay ay téere di ko lijjanti kon nañu sant tey gërëm di ñaan saabaram dafa ñu toog rek moom daal xam naa bu ñu toppee ba ngoon mën nañu moom daal lépp solo rek te nga bëgg koo dégg moom jàllale nañ ko jërëjëfati. moom journaliste moom saa su ne moom laaj laaj waaye nag yéen a yey di wax di waxaat te daanaka wax jee jéem ak ak mokkale fi mën a ca am moom murid yi xam nañ ni ndog yi njaarim la sosoo xam nañ tam ni euh, sëñ Bàmba ak maam Cheikh Fall ñoo ko sos ndax ndax euh, maam Cheikh Fall ci ndigal sëñ Bàmba la ko jëlee ñu bare bare bare bare wax nañ ni ñaar fukk ak juróom-ñeent comme weer wi ren jii ni mel seen bu jëkk xam nañ dañu laam laam-laamle dana feeñ ak du feeñ suñu maam ma nag ba mu wooyee maam Cheikh moom ñaar fukki ak juróom-ñeent ci la ko woo ci ci weeru baraxlu wi moom di kayam dañuy am gan gu tedd na ko teral ba maam Cheikh ñëwee daf ne suñu maam daf ne weeru day feeñ bi day feeñ loolu la nag dama ci liggéey loo wax nañ ne Bayaara Mbay la woo na ko bi ma tànk. bayara yaara bindu ko muy taat dor ak kef kef ñaar fukk la taat dor juróom ñent la mu ne weer kat ñaar fukk ñaar fukk juróom ñent ci lay feñ ci ci lay taxaw ci ay jamono nak tank moy gën wala deureum mu ne ko mu jox tank ma def ko ci liggey bi mu si am liggey lo bi bis yalla sak am nga yoolab weer weeru koor fofu nak ndogal soso bak ci fi fii dama ko fekkou ba xam ñaata ndogu la ba xam ñaata dab la waaye ñi nga xam ne ñoom ñoo ko wutu ca la ma fekk man fukki bool ak juróom la daa doon fukki bool ak ñeent ak liñ tuddi super bi ndax ndax yooyu jamono maanaam super bi dadul bokk ak bool yi bool yi ñaari ndawal ak gàtt lay doon mbaa ndawal nag super bi nag ay ganaar lañ koy def mujj bi suñ mag ba waaw loolu moom ñi nga xam ne ñoo ko wutu moom nga xam ne man sama xam-xam dëgg ci togg ndogu mi ngi tàmbalee Cheikh Abdoulaye Fall Ndar Cheikh Abdoulaye Fall Ndar da ko jële ci Cheikh Moussa Fall euh, Cheikh Moutala Fall man sama euh, xam xamme ko yóbbu ndogu ak sama xamme ko togg ndogu Cheikh Abdoulaye Fall Ndar la te Cheikh Abdoulaye Fall Ndar mi ngi jël si Moutala si Moutala Fall mi ngi mi ngi jël si Moussa Fall Cheikh Moussa Fall jël ko ci Cheikh Ibrahima Fall waaye kon dama yakar ne nok mom Cheikh Fall doon defe rek non non lañ ko defé waye waaye ma wax na moom ndabe mam maam Cheikh Fall mom ñata la waye kima fekk mom ta xamna ne ñoña lañ don def lay def bu ci yok amut comme ñu yokko ni fuk dëbb fuk dëbb ak jurum la doon mom hmm. dafa dafa dafa amu tur ndax ndax so yore feñi dañu um bu eggee fukki fan yaa fukki fan yi jeex na ñu tàmbalaat benn bi kon dañ koy kon dañ ko um waaye nag nit ki murit nit ki nii nii defee nii nga xam ne saa ndog yu jëkk yoo xam ne dañu um dañuy liggéey liggéey boo xam ne bi euh, maanaam yokkati yoo xam ne fukki bool ak juróom yi nga xam ne dañ ko dañ dañ ko def ne day nekk fee waaye ñu yokkat ci loo xam bi nag day foo lool ba jamono jii dañ ko def waaye nag maam Cheikh nag moom xamu woon ne moom moom daana def ay kumte bu dikk mu yokk ko xam xam xam daw ko def ndax fikku mu ko te waxuñu ma ko waaw. mag ñoo xam ne ñi seen wax seen wax gëm naa ko day na fukk fan juróom-ñaar fan si doon bés bés doon ko dikk ajjuma ñaar fukk fan ñaar fukk fan yooyee nag fukk ak juróom-ñaar yooyee nag ci la badara ji tàmbali. ci cheikh ni mi doxé wér wi nga xam ma sang wér yi ci li ñu mbakk jor bis bi nga xam guddi nga moy moy guddi sang yi do guddi ajuma ci li fan ci mbakk jor badara jit ci sel taxaw gaaw di bir dibér ji mo xam-xam wax na ci lañ ci lañ ci adina sanc àddina dibér jooju ci nak nak nak nak ci la jant bi am do ñar fan yi ci jël jant bi am ci la xëqanteeg sëñ bamba ba xal ko ko dama topp tànkam yalla bam sa ci yow suma ko gëna lé soxlaat soxlaat soxlaatum ci dëkk bi dara sëñ bamba nak sëñ bamba mom xam na ne ki ki koy seet ñu ànd liggéey bi agsi na maam seet xam na ne kimi seet ñu ànd liggéey bi agsi na waaye faaw nag noonu lañ ko jaaralee ndax kat sëñ Bàmba bañ ko ba wiir wiir nga xam ne fi fii su fii fii su jël boppam kenn ku fi da def na pexe boppam ba ka ka kay bon wiir wiir moo ko jë moo ko jëkkat ma fi Fi Dakar bu fi joge di senegal gi Dakar di dem Gabon do dug bato kon faw dan ci boole fi nit gannaaw dañ ko tuddi nit der bo mu sen ci géej gi taxaw ca di julli nemu dikati dikkaati euh, wàcc ku nek man waaye yéegaat nak moy affaire ba kon kon nam def ba gat ak agnem ak nam def ba fay julli maana ko def ba dem ligi, liggéey limi muy ci lu deug bato waaw bis bi nag kep ko xamni ki yaangi ngi yaangi xalat ngi dara su bis bu dikke dara yi dar dara dara dara ci àddina woto ko soxlo mi bi ndax seerafa dajna ci dajna na dañ ci liggéey ci mamba lo xamni li bay ko ñun ñu ko jëfandikoo ci bis bi lok ko samkaate ci bis bi lok ko samkaate ndax lo xamni ne ko war da nga ko liggéey fanweeri at liggéey liggéey ci ñetti at bisub tey la ko jaayantewaat la ko la ko jaayante woon ndax at yi su ko bëggee liggéey fanweeri at digënt digënt bi dana guddu fukki nekk men at lu liggéey kon Cheikh Rafal daawul tëdd daawul nelaw tëlu ko waaw ni maam Cheikh Rafal def ni maam borom Tuubaa Mbàkke def alxuraan juróom benn fukki si yëpp fukki si bi yëpp wu ne mu def ko aw woy fukki si fukk ñaar fukki si bi yu mu def ko benn woy mu ñetti way mu mu mu tënk ci kamil ba noonu la seeral tënk tëm tërbiyam googee war a doon fanweeri at mu liggéey ko ci ñetti at fukki at yu nekk mel na at la ko liggéey bis bii képp koo xam ne kii ba mu ñëwagut li li am amut muur yëpp yëpp ku nekk yàggee bagage maam Cheikh Ibra Fall yoo ni soo ko delloo nekk feneen ndax maam Cheikh Ibra Fall ba mu ñëwagut raamal nit jox sa ñaari loxo su jotul ko amut tey itam jox nit ñaari loxo mbaa jox ko ba benn loxo nuyu ko ara amut waaye tey sëriñ bu ñu ko defal tey sa tari boobee ko defal dañ daan daa dof waaw ca àll ca àll la te lépp ci at bi la amee ca Mbàkke Kajoor nag Mbàkke Kajoor la jaayantee wala liggéey bépp Mbàkke Bawol ak Daaru Salaam ak ak ak anaar yi ak anaar yi yi ko wër waaw Mbàkke Kajoor nag la jaayantee nag wala liggéey bépp bépp bépp bépp moom Mbàkke Bawol gii la ak Touba Daaru Salaam Daaru Manaan ak anaaram ba mu am jaajëf ja ca ca Daaru Salaam boo gis nag jaajëf lay wut. moom nag am mën a jaayante na ba am jaajëf bis bi daal loolu moom xam na xam na ko ci moom si mu Abdoulaye Fall moom dafa def loon ko ñuy fàtte si mu si mu Abdoulaye moom ko ñuy fàtte bañ ko fàttali si mu Abdoulaye doon ko ñuy fàtte bañ ko fàttali saa su nekk ñu ngi wéy ci indigalam di moytu ay tereem ndax musta musta dox lu yàlla gërëmut musta wax lu yàlla gërëmut xamal ko njabootam xamal ko taalibeem seex na ko waak Seex Rafal seex na ko waak waak Sëñ Bamba waaw yàlla nga saa woon yokki leeram moo moo ñu war maam yi gépp li ci nag soo demee nag man eh, maa ngi saare nag mboolem sama kilifa yëpp nag waaw sëñ si bintu mi ngi saare mboolem kilifam yëpp mboolem bunt kër maam Seex Rafal yëpp sëñ si bintu mi ngi leen di saare waajuram waajuram ya fa nekk ak magam yi nekk ak rakkam yooyu fa nekk yëpp sëñ si bintu mi ngi leen di siyaare di leen ñaanal ci ci ci barkeeb seen maam ju baax ji di maam Cheikh bi ñuy liggéey lépp mu mu mu ci loxo maam Cheikh mi ngi ñaanal mi ngi ñaanal taalibe bi yëpp itam nag sëñ Badam sëñ Badam mi nga xam ne tey lii ñu waxee moo leen ko dàkkantele muy doom sëñ Talla Yacine di xaat sa sëñ Modou Ablaye Fall Ndar yaakaar naa ne am Talla mi nga daaw ko fi ci kër gi Talla Yacine moomee si sëñ Talla Yacine moomee di doom sëñ Basiru Fall maam Cheikh Fall mi nga xam ne moo demoon ci géej moom si si moom mi ndax li li ñu waxee ñoo moom. Baye moo Mbaye Issa mag ñi xam nañ ko de faatu na waaye ak njabootam ñi ngi kër ñi ngi kër ñi ngi kër ñi ngi ñi ngi ñi moom ci taalibe Maam Cheikh Fall waaye moom daa féetoon kër dafa daa féetoon kër Serigne Assane Fall kon loolu wala sëñ Abdoulaye Fall daal nag amoon na taxawaay sëñ Abdoulaye Fall woo na ko sëñ Abdoulaye Fall si Baye eh, Modou Mbaye issaa ak man miina yàlla fe yàlla yàlla yàlla yàlla fekkoon na ko si moom lay daal na ko waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw si Modou Mbaye Issa bàyyi Modou Mbaye Issa seen gaal ga nu mu demee woon nag mun ne waaw sunu gaal ga day marañi marañi dañ ko bënn ci ci yor ci yor yor yor yor bu teel la ko mën a ñu bënni war a teere ji takku na lañ fa war a egg te gaal gi moom balaa mi dama war naa soox ne bañ ko yëgee wax capitaine bi capitaine bi daan a ah, nit ñi ne ko doomu Cheikh Fall dee ngi ci doomu doomu doomu Cheikh Fall dee ngi ci Bassirou Fall nee mu dëkk ci sëñ Bassirou Fall ne ah, gaal gi te fa ñu teere ji dëkk bañ jëm ngoon takkusaan lañ fa egg te ni nga ko bënnee balaa mi di war naa soox te te te soox ñëppay dee bàyyi moo dama isaa nee na fekk si Moussa si moom café gën ko sari woon war koo naan naanugu ko da ko sal ci tarmus bi tarmus bi ci la ko sol nee na Baye Modou Mbaye Issa nee na si na ko Modou Mbaye jugal yéene jugal taxaw yéene na ku bëgg nelaw na nelaw bu ken tit bu ken jak da teeri téré né bay mo isa dal ah man fa lool ñëw ko waxa ah. né na si musu dal daal ga birket bi birket bi ki eh, eh, bi bi ñuy bo bo mu am ne ne mu fenqe bi bi fenq takut. né nee si jël café ga sotu ci gën gi xëc mu tak mu ne ko Modou Mbaye Issa soo gëmee Cheikh Ibra Fall yéen wax li ma la wax soo ko gëmut ba ba ñi ma ko wax dana teeri su su su su ne naaw Cheikh Ibra Fall na ko ba métti métti Modou Mbaye Issa ba baag waxee li nangu ko bàyyi Modou Mbaye Issa ñu ñu ñu dox dox dox ba egg fañ jëm takku saan gaal ga teer ñu wàcc kenn faatu loolu moom sëñ Bassirou Fall moom moo ko def kon nag ñoo ngi siyaare sëñ Bada yow mi xam ne yaay Sima Touré itam ñu ngi lay ñaan bu baax sa borom may may la ngërëm may la may la ngërëmal sa sëñ bi guddal sa fan wér sa cër yow danga ngaa yaroo sax ba mun laa wax da ngaa yaroo yaroo ba ba xam ne sa wax sax kenn ko dégg da ngaa teey ba sa wax kenn ko dégg waaye nag yàlla yàlla yàlla na sa borom jàppale ci doole si moom Abdoulaye Fall Ndaru mbaax ma barke barke Sëriñ Sëñ Bintu Fall bisimilaay